subhanahu wa taala ko sunu royukaay bu baax a baax kon nag fii minbaru daara bu ci accès daara war naa mën a jël kàddu ni ko sëriñ Abdou Samad waxee ñëpp déglu ko daara mi nga xam ne yàlla dogal na li fi jag moo ko fi jagal li jag ci réew mi moo ko jagal réew mi ñu nekk muy Sénégal moo nekkoon capital AOF e yàlla dogal na résistance bu daara am jàmmaarloo ak kono yi ak lépp seen pexe yi ñu amoon seen ngànnaay ya lu ñu mën a fexe ngir fay daara def nañ ko décret bu ne génn nañ ko ngir fay daara. bu baax ndax jëwriñ yi ñu am kat li sunu borom li nu sunu borom sant rek lañ ñuy fàttali lañ ñu tere rek lañ ñuy fàttali te saa bu ñu leen xoolee leen te lu sunu borom santaane woon kon ku am jëwriñ ju mel noonu war ngaa ba saabu bu geesoo gis la la ca dolli am na kaddu yoo xam ne sëriñ Soxaay bu noonu ko waxan maag ñu bari ci jotaay bii mu am benn bis mu liggéey loolu liggéey bu métti lool ban dikkee fekk waxtu tisbaar jot ban julee tisbaar ba noppi muy waxtaan ak nun nenu dama bëgg ngeen am pëstéef te amuk jub te amuk sellal ndax dama bëgg yawmal xiyaamatil akbar Sëriñ Tuubaa tànn nii mu tànne ay nitam ci tànnee fu yonent bi bu kere go yéen ñi nga xam ne da ngeen a aju ci man ngeen mel noonu ca tànne foog Sëriñ Tuubaa googee wasalaamaaleykum wa rahmatullah ndax sëriñ sëñ Abdou Dey ba ma koy def ba ma koy jox kilifteef xaw ma luy kilifteef bañ daa bokk ci lal di tëdd booba laa joroon kilifteef jox ko loolee nag mooy dox ba nëgën si tey dara ci man mii nag ak sëriñ Abdou Samad dañu am sas sas mooy Cheikh Abdou Lahad dafa am lu ma a wax maa ngi sëriñ Abdou Samad mii noo ngi ci nu waxoon kilifa gu mag daf ko wax ne Abdou Lahad ko Mbakke mu ne ko képp ku wax ne sama taawu baay bu sama baay doon dund danaa ko defal nangam ko defoo ko sa taawu baay waxoo lool boo demee lu mu lu mu saa joxoñ na nga ko dagg waaye nag boo ko roy royal sa baay ndax moo fa dajale ña fa ne loolu yi ci laa teg sama tànk ci la sëriñ Abdou Samad bi teg sama teg tànkam ci la njabootu sëriñ Touba yi nga xam ne jaar nañ ci kër gi yëpp teg seen tànkam dana xamal ni sëriñ bi sëriñ sëñ kilifa de noonu xam nañ ko yow sa liggéey ñoom waaye nun yaay sunu kilifa sañ nga jox sa kilifteef ñëpp nag ñi la yilif waaye nun yaaru yilif ndax barab bi nu ñëw tey di wax tey Abdou Lahad Ka bi muy wax léegi jam na ma lool bi tuddee sëriñ Soxna bi ak fi ci àgg ndax li muy wax lu nu dund la nun ñu jaar fi ci barab bi tey yëpp li sëriñ Soxna bi doon sonne ci noonu sonniku woon sonniwu ko woon ci ay doomam lépp tayee taxoon bëggoon nu baax bëggoon nu nekk ci siraatal mustaqim nekk ci Sëriñ Tuubaa bëgg rekk taxoon lam doon daj ci nu mu doon ko ci kon nag sëriñ bi barab bii nu nekk tey jëmm ji nga xam ne moom la ñu defal bis bii toolub sunu borom bi tabaaraka wa taala ñun ñi nga xam ne bi ñu am juróom-ñaari at la nekk ci biir gën gi biir nañu li suñu borom santaane ci tool bàyyi na ko ba mu def takk te bàyyiwul ci tool yàlla it fay na ko fay bi mooy barab bi nit ku ne fekk na ko fi te doxin bi nga xam ni moom la Serigne Touba bëggoon mu nekk moo ko mayoon loolu nekk na fi ba wuti boroomam it mus sa jeexle dara te mus sa wuti dara te mus sa ameel kenn dara yi keroog ba mu wàccee liggéey bi kenn mënu taxaw bi suñu soxla bu ameel la ameel la ma nangam te mus sa jeexal dara te mus sa man ci dara nekkal yàlla waraloon loolu. ndax ndénkaane li Sëñ Tuubaa dénkaane woon waxoon ko mag ne moom ca la tegoon tànkam dafa waxoon ne damaa lëggéeyal yàlla sunu borom tabaaraka wa taala jaare ko doon suuru ndax yi ba mu jël digg bi fayee ma ko ma taqale ko yéen dee leen si jariñu te di leen jariñ di leen jariñ nag mooy daal cee teg ne biñ leen si jariñu te di leen jariñ di leen jariñ nag mooy teg leen ci yoonu yàlla bëgg foofu yàlla sëriñ soxna ba tegoon tànkam man mii sëñ sama Samad wax léegi maag ñi ma ko bokkal ñëpp te njabootu Serigne Touba ci barab bii la nekk mu yar mu def ñun jikko yoo xam ne li mu doon sonne ci mu sonnewu ko woon ci ay doomam ndax xamoon na lii tey mas naa ci nekk di ay xës yu bëri yu ñëpp dégg waaye ba may andiwaat rek mooy si Abdou wax léegi man Cheikh Abdoulaye daf ma waxoon personnellement ni ma Mahmadan man ko bakki man ma juróom rek la am ci yow te ñu des lépp suñu boo ko def ci yow juróom-ñaari at ñun ñii ñëpp dañ koy am gi di ci jiitu di ci fekk ñu di ñu di ko gis amul liw amul sedd amul taw lu mën a doon mooy jiitu ci jàkka ji soññee njaboot bi ñun ñëpp ñu dikk tey noppi ci jàkka ji mu jiite taxaw jiitu amul jotu sax gisee ci doomu aadama booba ngoon bu jot turu yàlla laa ilaha illallah nun ñii tey ak waa Kasina Baxaar ñii tey noo daan toog def géew di ko def bañ julli géew musamal bi loolu lan la woon yar nu ci diini ak ci bëgg suñu borom tabaaraka wa taala naa nañu ci tey ba ñun ñëpp tey ji ku ci bëggoon a wàcc ku ci bëggoon a wàcc li suñu bu def ci yow sa ngor du la ko may sa juddu du la ko may lam def ci yow say na ci yow dara mën du ko jëm kenn loola loola la doon jëmbat daara jii tey liñ ci mujjee wax ana lu wax su ma sañoon mu takk jër te dootu fay loolu moo doon mission ci yoonu sëñ Tuubaa bi bi loolu jàllee nag danaa ci ak si tuur ci sëñ Muntaxa daral ko cant nag ak ngërëm lu wér noonu ñi mbokkal sëñ Tuubaa te lii ma wax dama ko ko waxoon jëkk fàttali naa ko bi mu nekkee sëñ Touba dama ko daan wax ni ko nun ñi nga bokkal sëñ Touba yi nuy say rak fonk nañ la naw la fonk ñu teg naw ko nag boole ko jafe na doxin bi ñu gis yow moo a loolu lu ma tontu woon lii nga ma wax day am na mag ma mos a toog ci sëñ Bassirou di ma ko seereel sëñ Bassirou ni jàkk li ma xool ba mu noppee mënu ma man ah, temps mënu ma kii ni wax bu nekkee ci yow fexeel mu nekk ci yow bu nekkul ci yow fexeel mu sax waaye nag dafa yaatal gannaaw boo xamee ni Serigne Sidi Maxtaar liggéeyal na Serigne Touba ci tool bi liggéey boo xam ne kenn ku nekk tënk sa bët ak bii daaw mi ngi foon borom wàcc ko mi ngi ni fang jëf doo xam ne loolu doo dootu fay kon noonu tam danañ seeni jëfam ndax ci njabootu Serigne Touba la ñu bokk waaye nag santaat Seex Mouhamadou Mountakha ci dox yi nag ndax tey jii dox yi ñu mag ñëpp delloo si nag kenn nattabliwu dëkk bi tey ni mu dundee surtout ci weeru koor yu tedd lii nga xam ne si Tuubaa amutoon lu dul moom ñëpp teg na ci seen bët loolu nag kon duñ def lu may ñaanal ko yàlla ak sëriñ Tuubaa bàyyi ko fi sama Abdou Samane nag yow da nga am sas sas bi mooy dafa seede ak ba sépp géej mu wax ci yow loo xam ne loolu la xam ci yow dafa wax ni lépp luy lu baax bu ko yëg ci yow maanaam lenn lu koy perte ci ci lu baax du am te dafa taxaw wax ko lu xam ni du waxe bakkanam te mooy Serigne Touba te lépp lu mu wax rek dëppoo na jar borom kon yow sas nga amaat woo xam ni sas bu rëy rëy la ndox ko nag bi nga xamante ni yaa ngi ko topp ci sa noonu yaa ko topp ci gannaaw suñu kilifa bi di Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké lu fas yéene lu mu digle lu def ko lu mu tere lu bañ moom bii tey di ko ñaanal yàlla it moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ndax kilifa bu neex a jëflanteel ndax li ci ëpp mooy li ëpp solo ci kilifa sa borom def na am na yërmaane woyof na te bëggul adduna te liy yàq kilifa seen laaj daa wax ni loolu suñu tubaab jëkk a dimbalee mooy li mu jëkk a dimbali ci mooy bëggaat ndax bëggaat na raas ku li xajee ñaaw tey boo gis si àdduna ci bëggaat lay tàmbalee loola yàlla da ko dindi sëriñ bii mu woyof koy jilif ñëpp ba noppi wàcce boppam ba nga xam ne kenn ku ne mën ngaa jëflante sëriñ bi li lay ñaanal ci barkeb sëriñ Tuubaa mooy yàlla bàyyi la nga wér pelek dund taxawu njabootu Cheikh ba sa yéene jëpp ak lépp nag Cheikh Abdou Samad mi di di jëwriñ ji ànd koog yow ñun ñëpp di fas yéene ànd koog yow ci barkeb seexal Al Khadim ñu délégation gouvernement bi di ngi leen di sant Serigne Cheikh dafa ma waxoon ne ma maam Thierno bi bu waxee ba nag man ma ko beralal cant ndax màggal gi bi muy ñëw dama amoon i bëgg-bëgg santaane woon lépp def nañ ko te dara desut na ma ko bëggee woon jëf jëfe nañ ko noonu. Cheikh Abdou Lahad nag danaa wax ni nit nag bu la jëfalee lu ñëpp gis war nga ko gërëm ba ñëpp dégg ko maanaam nag cant gi ci wàllu nguur gi maam Thierno na nga xam ne soo delloo sëriñ Cheikh nee na sant na ko li mu am mooy ñaanit yàlla borom tabaraka wa taala dana ko ñaanal yàlla suñu borom mu tàbbal ko ci biir ñaan gi bari duñ bëgg mu am ko di leen dénk taalib yi nga xam ne ci kër gi lañu bokk te amuñu lu may sëriñ gis na ju muy toog tey mbay faal miy nijaayam léppam sëriñ Sohaybu mu jébbaloon ko sëriñ Soxaybu ba muy ndaw mu nekk ci yéen kon nag dun man lu may barab bii tey su fi bés amee mu nekk ak ñi demee ni moom danañ ko seede ngeen xam li mu fi doon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu